bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Alioune Sall téere bi daf ne woon awwalu ma yajibu la njëkk a war alal mukallafi ci mag tasxiixu imaanihi mooy wéral gëmam summa ginnaaw ga ñaareelu war-war ba maarifatu xam maa yuslihu bihi lum mën a defare fardu ayni farda aynihi faratay jëmmam ka ahkaami salaati lu mel ni attey julli wa taharati ak attey set wa siyaami ak attey koor wa yajibu te it dana war muy ñetteelu war-war ba ci moom an yu xaafisa mu watonteeg ala xududillahi ci rëdd yi yàlla rëdd ne taxaw leen fa su ko defee wa yaqifa mu taxaw inda amrihi fa yàlla digle ko fa taxaw wa nahyihi mu taxaw fa yàlla tere mu bañ faa dugg wa bokk na ca war-war ya te mooy ñeenteel bi yatuuba mu dellu ilallahi ca yàlla subhaanahu yàlla mu sell mi qabla an yasqata alayhi bala koo mere ndax ku yàlla mere ba génn ci yow soo tuubatee du ko nangu wa shuruutu tawbati sarti dellu ci yàlla nag an nadamu moo dig réccu ala ma faata calawe yoon wa niyatu ak yéene allaa yahuda bañ a dellu ilaa zambin ci bakkaar lu mu tuuti tuuti fii ma baqiya ci li des min umrihi ci dundam wa bokk na ca war-war ya an yatrukal maasiyata mu bàyyi moy fi saatiha ca jamono jëmu tuube in kaana mutalabbisan biha bu fekkee mooy ga dafa nekk lu mu daan def wala yaxillu daganul lahu ci mag an yuaxira tawbata muy yéex ak tuub loolu nekk li njëkk ci lu xaram yi loolu daganul wala yaqula daganul muy waxit naan damay ne ci jubadi xataa yahdiyani llahu ba yàlla jubal ma ni mu jubale ñu jub fa innahu wax jooju min alaamati shaqaa yi mi ngi bokk ci màndargam ku nar a texee di nar a dem sa wara wala xislaani ak màndargam nar a gecci loo dugg yàlla seetaan la ci wa tamsil basirati ak màndargam gis bu gàtt wa yajibu te it dana war ci mag muy juróom bennee li war war yi xifsu lisaanihi wattu làmmiñam min alfashaayi ci njombuteef wal kalaami alqabiixi ak wax ju ñaaw wa aymaani talaaxi ak ngiñal passé wa intihaaril muslim ak gëddu jullit wa ihaanatihi ak doyadal ko wa sabbihi ak saaga ko wa taxwifihi ak xupp ko fii xayri xaqin sharciyin ci lu dul àq boo xam ne sharia moo ko teg wa yajibu te it dana war ci moom ba tey muy juróom ñaareelu war-war bi xifsu wattu basarihi ab gisam min an nazari ci xool ilal xaraami lu araama xool muy juróom ñaareelu war-war wala yaxilu lahu daganul ci mag muy ñaareelu lu xaram li an nazaru xool wala an yansura muy xool ila muslimin cib jullit bi nasaratin ci xool boo xam ne tuzihi da koy lor muy ñaareelu yi xaraam nga xam ne ñaar fukk la ak juróom ñett ci muqaddima bi ila an yakuna lu dul kami xool nekk faasiqan di ku jubadi fa yajibu day war su boobaa hijraanuhu gàddaay ko bañatee ànd ak moom wa yajibu alayhi war na ci mag muy beneen war-war bi moo di xifsu jamii jawaarihi wattu mbooleemi cëram mastataa kem kàttanam muy juróom-ñaarlu war-war bi kem kàttanam wa an yuhibba war na ci mag su dee bëgg lu muy bëgg mu bëgg ko lillaahi ngir yàlla muy juróom-ñetteel bi wa yubghida muy bañ lépp lu muy bañ mu bañ ko lahu ngir yàlla muy juróom-ñeenteel war-war bi wa yarda buy bëgg mu bëgg lahu ngir yàlla lépp lu muy bëgg di ca kontaan na ko def rek ngir yàlla muy fukkeelu war-war bi wa yaxdaba suy mer na mer lahu ngir yàlla muy fukkeel bi ak benn wa ya'muru bil ma'ruf muy digle njekk wa yanha anil munkar muy tere lu bon muy fukki war-war ak ñett yoo xam ne borom téere bi ci muqaddimaam bi def na ko ca tabarkal wa yaxrumu alayhi araam na ci mag ñetteelu lu xaraam li ci muqaddima bi alkazibu wax lu dul dëgg wala xeebatu mu ñett ñeenteelu war-war bi muy jëw wa namimatu ak rambaaj wal kibru ak rëy wal ujbu ak naw jëf wal riyaau ak njistal wa sumuatu ak bëgg a siiw déggtal wal xasadu ak kañaan wal buxdu ak soxor wa ruyatul fadli ak gis ne moo gën alal xayri ku dul moom loolu it daa xaraam wal hamzu ak jëwe bët wal lamzu ak jëwe làmmiñ yooyu it daa xaraam muy fukkeel bi ak ñeent wal abasu fa daa xaraam ci mag wa suxriyatu reetaanub jàmbur daa xaraam ci mag wa zina ak njaaloo daa xaraam ci mag wa nazaru ilal ajnabiya ak xool jàmbur bu jigéen maanaam du jabaram du sëram du yaayam du bàjjanam wa talazuz ak bànneexu bi kalaamiha ci ay waxam loolu lañ doon jàpp mbaxana foofu la ñu taxawoon muy fukkeelu lu xaraam ak juróom-ñeent ginnaaw bi mu limee fukki ñett fukk ak ñett ci yi war ci moom ndax borom téere bii day muxaddimaam bii képp ku jëkki ba ngoon jot ngay bëgg a tëdd nga vérifier sa bopp gis ne amoo ci benn fët tabarkalla sa bis bi nga yendoo neenut bu suba saa booy xëy nga programme ba doo daanu ci tarjumaan ji soo yendoo ba ngoon jot nga seet sa bopp xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu boo ci amul benn fët tabarkalla si bis boobu neenul moo tax suñu mag ñu baax ñi yal na yàlla fayal ñu leen téere bii bala ñoo may kenn jabar dañ lay wax ndax mokkal nga alxuraan su ne déedéet ñu ne ndax beqi nga nga ne déedéet ndax wàcc nga nga ne déedéet ndax jàng nga laxdari nga ne déedéet kenn du la may jabar tabarakal léegi si nag moom boo yore weccet boo wàcceeg boo wàccut ñu may la loolu tax moom mbir yi léeg-léeg coow li na kurru ci kër yi tabarakal waaye yu xaram yii ak yu war yii ku leen sàmmanteeg moom neex a dëkkal nee na wa bokk na ci li xaram bokk na ci li xaram muy ñaar fukkee li yi xaram yi mu lim ci téereem bii mooy ak lu lekk amwaali naasi alali nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lu dul teeyu bakkan képp kuy lekk alali nit ñi te di ko lekk te lekkoo ko ci seen teeyu bakkan la ngay def daa xaram dama dama alalam yàlla tabaaraka wa taala ni mu ko attee tax na ba ku nekk war naa bàyyi xel alal ju moomut rawatina di ko lekk bi xayri tiibi nafsin alal day li jëm ci miraas yàlla subhanahu wa taala bàyyiwu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moom suñu borom moo ko séddaleel boppam ne ku faatu bàyyi jabar jox leen ko lii su bàyyee jabar ci doom jox leen leen lii su bàyyee ndey jox leen ndeyam lii su bàyyee baay jox leen baayam lii bu dee jigéen ju faatu bàyyi jëkkëram jox leen jëkkëram lii ba miraas ma jeex yàlla tabaaraka wa taala ne ku ko defiwul nii mooy nga yàlla te ku mooy yàlla mu dugal la sawara kon gis nga alal foofu beneen ba ca tegee li jëm ci wàllu azaka suñu borom subhanahu wa taala moo wax ci alxuraan joxal leen ma kii ak kii ak kii ak kii ba muy juróom-ñetti nit ñooña la sédd asaka keneen kuñ jox ku dul juróom-ñetti ñooñi yàlla tabaaraka wa taala nee na dañuy ne sànq alal ja waaye génnewu leen ko asaka naka noonu ku sàcc alali jàmbur la nga sàcc mat nisaab te borom dencoon ko yàlla ne dagg leen loxob waa ji na nekk ab kooñ xool leen acte yi yàlla tëral ci alal tabaarakallahu ni nga xam ne noonu la métti su ko defee kon borom téere bi nee na wa bokk na ci li araam ak lu amwaali naasi lekk alali nit ñi bi xayri tibi nafsin ci lu dul teeyu bakkan kon kuy lekk alal na nga xam li ngay lekk lan la na nga fexe ba li ngay lekk lew la bul ko njuuj njaaj bul ko rambaaj te it na nga fexe ba boo jëlee am mbir engagé woo ko mu jub liggéey lépp lu ca ruuse te liggéey ba tax na nga fab loolee àggale ko fa mu jëm lépp loo xam ne da nga koo wax ne dama koy liggéey huit heures laay xëy midi laay wàcc bu la huit heures fekkewut ca liggéeyukaay ba midi jotagut nga wàcc ne la wóor na yaa ngi lekk alal nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lul tay bakkan ku ñu ne huit heures ngay xëy ne la huit heures di fekk fa ngay xëy ku ñu ne midi ngay wàcc ne la fa midi fekk doonte midi day teg ak ay minute wala boog midi pile yaa xam waaye ne la fa midi fekk lu ko mooy yaa ngi lekk alal nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lul tay bakkan naka noonu nekk ci liggéeyukaay wax ne damay liggéey ñu jox la ay machine nga war di bind wala yooyu nga toog yor sab seetu di seetu yor sab émaay di émaayu yor loo yor ci say bët wala ci say baaraam di xoolaan liggéeyu jàmbur ba loola yaa ngay lekk al nit ñi bi xayri tibi nafsin ci lu dul tey seen teeju bakkan naka noonu jox la liggéey nga ñëw ngeen toog defu leen ko xanaa yor seeni këyit di seet la ngeen di seet mooy nu ñuy def ba gañe nangam ba gañe nangam loola tamit bokk na ci lekk al nit ñi bi xayri tibi nafsin ci lu tey bakkan naka noonu xëy liir sa jënd sa journal daal di koy tiim di seet la ca nekk te war a liggéey liggéey bi tiim la tabaarkàlla loola ma nga bokk ci ak lu am waaye nasi bi xayri tibi nafsin bëri na lool kon borom téere bi nee na lekk alali nit ñi bi xayri tibi nafsin ci lu tey bakkan daa xaraam muy ñaar fukkeelu li nga xam ne mooy masala yu araam yim fi indi wal aklu ak lekk bi shafaati ci seexale shafaa mooy nga dox diggante ñaari nit kii lii lay deflu kii lii lay deflu nga dox ci diggante ba ba lekk fa dara maanaam soo toogoon tey foo xam ne dañ la fay fay ngay liggéey li ngay liggéey ay kayit la kayit yooye am ku ko soxla ci yow ñëw jox la lañ war a joxe ca kayit wa yëkkati leneen tegal la ca nga lekk loolee nga lekk daa araama lekk loolee nga lekk dafa araama lekk fépp foo nekk li ngay liggéeye moomoo jumtukaay ya boo doon rajo dañ naan la moomoo micro ya moomoo lecteur ya moomoo courant ba yépp ka ko samp ko samp tey soo fa defoon menn mbir ba nga noppee ci mbir ma benn waaye yëkkati dara buux la ko neexal loolee su aggul ca njiit la xanaa yow nga kott ko daal di jàll ak moom yaa ngay lekk bi shafaa te loolee nga lekk dafa dëgënul aw wala ba bi diini lekk ci turu diine lekk ci turu diine mooy woote loo xam ne diine nga ko wooteel ñu jox la dara àggalewoo ko ci diine xanaa jëfandikoo ko loolay lekk ci turu diine suñu maam Cheikh Al Hadji Malick Sy radiallahu anhu daana wax ne Malick day wut ay sabaram ak ay ndëndam nekk ci mbedd mi di tëgg ñu koy jox muy lekk ñu naan Malick lam def nangam nangam moo ko gënal muy lekk ci turu diine ndaxte lekk ci turu diine dafa rëy tabarkàlla kon kuy woote ci diine buñ la joxee lañ la jox na ci diine jot lu ko mooy yaa ngay lekk ci turu diine te diine nag kenn moomu ko ñépp a ko bokk kenn moomu ko ñëpp ko bokk tabarkàlla léegi-léeg nga dégg ñu naan diine ji bi fi yonent bi jógee sallallahu alayhi wa sallam daf koo dénk diw ne moo koy yor déedéet diine ji yonent bi moomu ko sallallahu alayhi wa sallam ba koy jox kenn kenn du joxe diine ji bi mu fi jógee da koy bàyyi nun rek ginnaaw yàlla moom moo ko moom mooy seet ku ko yor mu yor ko mu jox ko Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ba mu fa jóge ñu jox ko keneen rek waaye yonent bi moomul diine ji yàlla moo ne ko woon laysa laka min al amri shay aw yatuba alayhim fa innahum zalimun wa bokk na ci araam taxiru salaati yéexe julli an awqaatiha ba waxtu wa génn loolu daa xaram yéexe julli ba waxtu wa génn waxtu julli wu génn nag bu ñu diggee ci biir téere bi incha allah daañu ko gis fan la waxtu julli di tàmbalee fan la waxtu julli di jeexe wan waxtu julli mooy wi gën ci waxtu yi wan mooy waxtu ngànt yooyu yëpp borom téere bi leeral na ko tabarkàlla soo ko jàngee bul fexe ba waxtu wi gën wi jeex waxtu ngànt wa jeex ngay door di julli loola boo ko defee yaa ngay mooy sa boroom subhanahu wa taala wala yaxillu lahu daganul ci mag soxbatu faasiqin ànd ak ku jubadi ku xas nekk mag am fukki at ak juróom baa nga tàmbalee sax kawari poqutaan baa nga tàmbalee sax kawari naq mbaa sab kàddu tàmbalee soppiku mbaa ngay jigéen gis nga póot danga war a seet ñi ngay àndal faasix mooy koo xam ne li yàllay santaane du ko def wala boog li yàllay tere ma ngi koy def kuy ànd ak kuy def lu yàllay tere léegi tey ngay def la yàllay tere kuy ànd ak kuy def li yàllay tere léegi tey ngay def li yàllay tere faasix mooy bu doon jigéen tey la muy sol du àgg ci óomam du mu sóoru tabarkalla tey ku ko ne jabb sa loxo mun la jabb loxo yow boo dee jigéen yow tey mu sóoru di ànd ak moom léegi tey mu sóoru dootu la saf ngay def yaramu neen ni moom jàng ngeen ci faatixa bu ngeen di julli ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anamta alayhim xayril maxdubi alayhim yàlla boo ma teg ci yoon woowu wala booliin wii it yàlla boo ma ci teg mooy kon ku ànd ak ku jàdd jàdd faasix kon mooy kuy mooy suñu boroom subhanahu wa taala te du ko nëbb kooku daganu te àndal wala mujaalasatuhu du daganit toog ak moom du daganit toog ak moom mu ñaar fukkeelu masala ak juróom ci masala yi mu ne dafa xaram toog ak faasiq daganut ànd ak moom daganut li xayri darura ci lu dul ngànt maanaam amuloo benn ngànt dara boolewu leen soo duggee super nag faasiq dugg super mu toog nga toog loola moom mënoo ci dara ndax day fay nga fay naka noonu bu dee beneen oto tabarkalla waaye bu dee loo xam ne mën naa ñàkk bàyyi fa faasiq dem toogi feneen fu dul toog ak faasiq loolaay la gën wala yatlub bu mu sàkku it muy ñaar fukkeelu bi ak juróom benn bu mu sàkku mukk ridaa al maxluqiina ngërëmu ñi ñu bind bi suxtal xaaliqi di ko jënde merum yàlla ngërëmu ñi ñu bind ñi ñu bind mooy doomu aadama yi doomu aadama yi kenn du sàkku seen ngërëm ba koy merloo suñu borom suñu borom subhanahu wa taala koo fi seen muy waaxu yàllaa ko bind yilif ko yilif la yéen ñaar ngeen nekk fi koo xam ne dina am benn bis ngeen def na firaw naag Muusa def te mooy ñoom ñaar ñëpp dem ci suñu borom subhanahu wa taala kon ngërëmu ku ñu bind waree su koo jënde merum ki bind ngërëmu ku ñu bind waree su koo jënde merum ki bind ki bind muy jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu war naa am ci yow sañ-sañ boo xam ne ku dul moom du ko am ci yow ngay wax amantu billahi tawakkaltu ala allah te muy dëgg ci yow kon rida al maxluqina maam borom tuba radiallahu anhu nee na ca téeréem ba soo dégloo yàlla su la waa suuf gépp mere woon du la wàññi dara waaye su la yàlla meree bu waa suuf gépp bëggoon ci yow it du la jëriñ dara kon li nit ki def mooy li mu war a def mooy fexe ba suñu borom tabaaraka wa taala bég ci moom ndax nit ñi moom boo bëggee fexe ba ñëpp bég ci yow keroog ngay dugg doomu aadama yi kenn munte fexe ba ñëpp bëgg ci yow kenn mënu ko wala fi dañuy wax ne boo ñëwee sa kër laaj say soxna sama surga yi ku ci gën kuñ ne moo gën bu ba nga génne ko kër ga ndax bu sa kër yàqoo moo koy yàq ndax surga bu jigéen ñëpp gërëm moom fecc dong lay liggéey ci kër ga loolu olof moo ko daan wax tabarkal kon wala yatlubu ridaa al maxluqina bi suxtil xaaliq bu mu jënde mukk merum suñu boroom mbégteel ñi nga xam ne dañ leen a bind dama damay kenn mun leen a satisfaire ñoom ñëpp dafa am benn góor mu ne doom ji kaay ma wan la adduna nga xam ne kenn munta am seen ngërëm mu ne ko acc mu ne ko suñ mbaam mii la ñu bëgg a jaay marché mu ne waaw ñu daal di jël mbaam mi ommat ko ñoom ñaar ñëpp dëkk ba nu njëkk a romb ñii daal ne ah ñii de kenn gën leen a wéradi na xarim xel mbaam moos waruñu ko xanaa di ko ommat nii mu ne ko doom yaa ci dégg mu ne waaw mu ne ko bindal mu bind mu ne ko waral doom ji daal di war ñu dem ba cib dëkk ñu ne ah wallaay gii gone moo ñàkk teggin war am mbaam sa bàyyi di dox lii de kenn mësu koo gis dëkk ba coow ko ba mu sonn mu ne ko doom wàccal ma war mu wàcc bàyyi ji war dëkk bañ àggaat daan ne ah ay waay gii góor moo néeg mag mu toll ni moom yërëmul gone gi xanaa war ci mbaam bi ni bàyyi ko muy dox mu ne ko doom dégg di mu ne waaw mu ne ko nañ warandoo ñun ñaar ñu bokk mbaam mu war ñu ñëw ci dëkk ba ñu ne ah waay waay ñi ñëw néeg waay ñaari ponkal ñoom ñëpp ne togg ci kaw mbaam nii xanaa mën nañ koo def sax bu kii waree ba sonn kii war mu ne doom dégg mu ne waaw mu ne ko lu ci def lu ko xanaa gàddu mbaam mi mu ne ko nañ ko gàddu ñu wut ab bant tabarkalla gàll ci mbaam mi yeew kenn ku ne gàll ci saw loos ñeqatooy xep dëkk ba njëkk a dugg ñu ne leen waaw kay yéen a ko tey ndax xam ngeen ne mbaam koo gàddu da nga ñàq mu ne ko doom léegi lan moo ci des mu ne ko dara mu ne ko doomu aadama yi nii la ñu mel kenn munta am seen ngërëm ñoom ñëpp ki neex am ngërëmam daal mooy suñu boroom subhanahu wa taala kon wala yatlubu du sàkku moom mag ridaa al maxluqina ngërëmul ñi ñu bind bi suxtil xaaliq di ko jënde merom ki nga xam ne moo bind qaala allahu yàlla nee na subhaanahu sell ñel na ko ci alquran wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu in kaanu muminin wallahu te yàlla wa rasuluhu akub yonentam axaqu ñoo gën a yey an yurduuhu ci ñu gërëm leen wala ñu gërëm mag mi in kaanu muminin bu fekkee ñu gëm lañu ñoom ñuy sàkku ngërëm kuy sàkku ngërëm daal sàkkul ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala wala koy sàkku ngërëmam ngërëm loolee na nekk ci roon ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala waaye bu mu wuuteeg ngërëmu yàlla subhanahu wa taala borom téere bi nee na waxaala wax na alayhi salaam yonent bi salaa sallam nee na laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq laa taa'ata topp du dagan li maxluuqin ci ku ñu bind fii maasiyati l xaaliqi ci biir mooy mooy ki bind topp ki ñu bind warta jur mooy ki bind waaw topp ki bind ki ñu bind warta jur mooy ki bind laa taata topp du dagan li maxluuqin ci ku ñu bind fi maasiyati alxaaliq ci biir moyum ki bind moo tax abu bakar sadiq radiallahu anhu ba ko sahaaba yi jaayanteeg moom ci alxilaafa dafa toog discours leen discours bu gàtt mu ne leen wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum ataa atiicuuni ma ataatu llah fa in asaytuhu fala taacati lii alaykum xuumu ila salaati daf ne leen fal ngeen ma ma nekk xalifa waaye dul dama leen a gën del ma topp li feeg maa ngi topp yàlla su ma moyee yàlla amatuma àqu ngeen may topp kon topp yàlla daa war a tekki topp gu wér topp nit it dafa war a nekk ci ron topp gu muy topp yàlla maanaam ki jaar ci yoon ku ko topp tem xam yoon wa yaa nga jëm fa yoon wa jëm su boobaa kon yaa ngi topp suñu borom tabaraka wa taala loolu la borom téere bi wax laa taa'ata li maxluuqin fi maasiyati alxaaliq mu ne walaa yaxillu lahu daganul ci mag an yafaala muy def filan jenn jëf xatta yaalama lu dul dafa xam xukmallaay atteb yàlla fii ci jëf ji wax ju rëy la waa ji wax fii daganul ci menn mag muy jëf jenn jëf lu dul daa xam atte yàlla ca jëf ja lépp looy jëf te xamoo ca atte yàlla loola daganut tànd tànd rekk di def du wér maam borom Tuubaa radiyallaahu anhu ca tasawudu sixaar ma nga naan ra'aytu ina annaas yafaaluuna kama ra'aytu annaas yaabuduuna mu ne jooju du wér waaw damaa gis nit ñi def rek ma def mu ne déedéet da ngay mën a layal li ngay def waaye atte yàlla it ci bépp jëf bala nga caa dugg da ngay xam ba xam ndax lii lu dagan la wala lu xaraam la bu dee lu xaraam bul ca dugg bu dee lu dagan nag tabarkàlla nga seet ba xam ndax doonut ne lépp lu dagan it ñu def ko doonut ne lépp lu dagan lu war la mbir mën naa dagan te lu war bépp jëf bu doomu aadamay jëf da caa war a xam lan la ci yàlla àtte fi nekk bu modd xewee ci dëkk bi balaa jënn jigéen a jënd modd booba daa war a laaj àtte bi yàlla ca modd boobee bu dee bu dagan mu tàmbali bu dul bu dagan mu nu ko fu ñukk ak ñooñee ndax moddu day xewi mbaa nga xewi naka noonu lépp lu di bëgg a dugg ci àdduna si war ngaa laaj lan moo cay àtte yàlla su fekkee xamuloo wala yaxilu lahu daganul ci mag an yafala filan muy jëf jënn jëf xatta yaalama lu dul dafa xam xukmallahi àtte yàlla fii ca la muy def lépp looy bëgg dugg laaj ci àttey suñu borom tabaraka wa taala ndax aqsaamul xukm shar'i juróom rek la àtte sharia juróomi àtte la am farata lu xaraam lu ñu sib lu ñu sopp lu dagal juróom yi looy bëgg a jëf na nga ca dugg fiq nag dafa nekk moom mbir mu doy waar ndax fiq day ñëw ci mbir di ko régler lii dagan na lii daganul waaye day ñëw ci mbir di ko régler lii war na ak lii waru soo leen boole ñoom ñëpp nag mën nga dugg ci mbir te doo xam àtte yàlla ci mbir ma kon lu waaye di bëgg a dugg na laaj àtte yàlla ci mbir ma doomu aadama nag léegi dañuy dugg ci mbir ba xóot ca lool door nag ne la lu ci yàlla wax soo leen waxee la ci yàlla wax ñuy jéem a seet fan la ñuy jaar ba génn ca genn waaye def ne tabarkalla dafa wàcc soxnaam ba muy ñetti yoon léegi nag lu ci yàlla wax quoi xanaa baal soo ji mu ne mu ne déet xanaa amul beneen affaire bu ñu mën a kii ah nga xamuñu ko mu ne kon na ñëw dem ca sëriñ diw ba xam moom dina ko mën a wutal fu mu jaaram déet lan mooy atte takk soxna soosu ba tey su ci duggee ci mbirum fase mu laaj lan mooy fase ak nangam bala koo def waaye def ko ba noppi dugg ba ci biir doo ko xam loola day daal di indi ay jafañ-jafañ mu ne kon su fekkee ne xamul àtte yàlla fii ci jëf ji nu muy def mu ne wa yasal al ulamaa mu laaj boroom xam-xam yi wa yaqtadi te buy roy nag mu roy bil muttabiina ci ñuy topp li sunnati muhammadin ci sunnatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii tamit borom téere bi wax na fox ju am solo daf ne wa yasala buy laaj na laaj al ulamaa borom xam-xam yi wa yaqtadi buy roy na roy bil muttabiina li sunnati muhammadin ci ñu topp sunna si yonent bi kon fu soo ko seetloo ñaar la leen def borom xam-xam yi ak ñuy topp sunna mën ngaa fekk benn borom xam-xam mu boole xam-xam ak topp sunna mën ngaa fekk topp kotu sunna bu am xam-xam waaye léegi la nga fekk borom xam-xam bu topput sunna léegi la nga fekk kuy topp sunna te amul xam-xam